ngeen di wax Cheikh Thioro dégg li nga xamante ne jot na ko wax mais également euh, ci ci ci ci wàllu est-ce que mhm. nekkul ay jeu de calcul yoo xamante ne ku ci nekk daf koy def parce que euh, actuellement ndax mën nañoo jàpp aussi que ne ne assemblée nationale majorité euh, carrément nit yi mën nañ ko amati ci biir oui ko que nag dégguma li Cheikh Thioro Mbacké wax Fatima mhm. par rapport ak l'Assemblée nationale mais bu ñu ñëwee ci li nga xamante ne moo jëm ci dissolution Assemblée nationale c'est vrai que aujourd'hui le débat se pose mais gis nañu ne le le le président de l'Assemblée nationale dafa convoqué euh, benn réunion aujourd'hui et que réunion boobu mën nañu xaar ne bu ñu si jógee mën nañu dem ci plénière boo xamante ne bu boobaa euh, li nga xam ne nag moom mooy mbirum déclaration de politique générale dafay nekk nag ci kanwu ki nga xam ne moom mooy le premier ministre Ousmane Sonko bi nga xam ne war na ko dem defee foofu beneen bi par rapport a la dissolution de l'Assemblée nationale ñu ngi ñuy wax depuis fan yi yëpp que ne ci presse bi que ne le président de la République dem na saisir le conseil constitutionnel euh, ndax c'est de manière aussi ci loolu nga xamante ne ñu ngi koy wax boobu ak mooy euh, saisir bi ñu saisir le conseil constitutionnel ndax dafay laajte date ban la war a tas assemblée nationale parce que pour la résolution de l'assemblée nationale il deux interprétations yoo xam ne ñu ngi ko ci def benn interprétation bi ñu ngi ciy wax li nga euh, xam ne le conseil constitutionnel euh, ci article boobu dafa wax ne député bi mi ngi perdre son immunité parlementaire ci bis bi nga xam ne le conseil constitutionnel génnee na les résultats définitifs maanaam nit ñi dañuy lié li nga xamante ne moom mooy immunité parlementaire ak député bi li nga xamante ne moom mooy kon mandaawam moom moo tax ñeen ñi jàpp ne li ñeel wàllug assemblée nationale mi ngi door keroog bi nga xam ne conseil euh, def na génne na les résultats officiels pour wax ne ñi ñooy député yi parce que règlement intérieur bu assemblée nationale article 51 moom moo wax ne nit ki nga xam ne mooy député la mi ngi tàmbali di am immunité parlementaire keroog ba nga xamante ne conseil constitutionnel dem na daal di koy daal daal daal di wax les résultats définitifs et loolu di koy firndeel mooy la cour de justice de la CEDEAO bi nga xamante ne bi ñu demee élection élection législative dafa wax ne weeru août ba weeru novembre 2017 bi nga xam ne ñi ngi teg ki nga xam ne moom mooy Khalifa Sall loxo boobu dafa fekkoon Khalifa Sall am malaanu kurlaay mi immunité parlementaire donc. il a été détenu règlement 5 euh, euh, bu UEMOA bi. waaw bu UEMOA bi loolu loolu loolu kon dafay firndeel ne. moom mi nga xamante ne kon moom mooy cour de justice bu CEDEAO. jàpp ne ne le député mi ngi commencé keroog ba ko conseil constitutionnel prononcé parce que bi muy wax loolu bu fekk na amagul installation mais y a les résultats définitifs. Mhm. ba taxoon mu jàpp ne la condamnation de Khalifa Sall a yooyu kaala beneen bi am na ñu jàpp ne mandat député bi parce que y a deux interprétations ñi nga xam ne dañu jàpp ne mandat bi mi ngi commencé eh, ci bu conseil waxee ne assemblée nationale bi kat pare nañu élection ñii ñoo fay dem li nga xam ne nag mooy jour bañ koy samp am na ñeneen ñu jël interprétation boobu ne jour boobu ngay door a nekk député ndax daanaka ci lan lay solal sax mbubb moom nga xamante ne mooy wane ne député nga à l'Assemblée nationale loolu bu fekkee ne moom la le 12 septembre 2022 la woon donc 12 septembre 2024 la doon donc c'est deux interprétations ci ñi nga xamante ne ñoom la ci seen xam-xam màcc mais mais ci interprétation boobu Fatou je pense que bi juste bi nga mhm. xamante ne moom mooy interprétation bu baax bi mooy le 12 septembre mhm. parce que ñu ngi dégg même directrice euh, euh, bi ñu dénk wàllu DER muy Aïda Mbodj yàggoon ci wàllu confirmé waat waxaat la même chose. parce que euh, mhm. bu fekkoon ne 31 bii lay jeex kon je pense bien ci waxu. kon kon dépassé nañ ko donc y' a plusieurs interprétations par rapport à cela. léegi nag li muy indi moom mooy aujourd'hui le président de la république ba mu amee li nga xamante ne moom mooy dem laajte ji le conseil constitutionnel qui va donner son avis et souvent léegi li ñuy wax mooy avis yi c' est motivé. Mhm. que le conseil constitutionnel moom dina ko wax lan la war a def par rapport à la dissolution de l' assemblée nationale ndax dañuy bàyyi ba le 12 septembre ñu dissoudre ko wala dañuy bàyyi dissoudre ko dès maintenant nga. xamante ne comme comme ni ma ko waxee et ma mhm. cité des articles yoo xamante ne y a plusieurs interprétations nga xamante ne suñu juriste souvent aussi ñu dugal ñu ci ay par rapport ak li nga xam ne mooy assemblée nationale mais pencum ndaw réew Sénégal aujourd'hui euh, dafay lié ak la déclaration de politique générale bu Ousmane Sonko muy une dissolution boo xamante ne tey waroon nañu mën dem ci DPG Fatima. Mhm. balaa ñu doon dem ci la dissolution de l' assemblée nationale. parce que aujourd'hui sénégalais bi nga xamante ne dafa ñëw jàpp ne ñii dañu fi toog et que wax nañu wane fan la ñu jëm c' est à dire y a des termes de référence am nañu benn cadre boo xamante ne foofu la ñu war a jëmee wax nañu ko foofu ñu war a jëmee les sénégalais le moo war a dem ci pincum ndaw réew bu Sénégal jàkkaarloog askanu Sénégal ne leen laa jëmee koom fii laa jëmee sécurité fii jëme santé fii laa jëme l'économie bi nga xamante ne jii tey am na ci loo xamante génne woon na ko ci ay kàddu wax ko entre mm. autres points yoo xamante war na ci wax et loolu pour mu wax ci il faut une déclaration de politique générale boo xamante bu ñu ci demee mën nañu fexe bu ñu ci demee ba pare door dem ci dissolution de l'Assemblée nationale parce que même si on dissout de l'Assemblée nationale ñu bari ñu ngi wax nan la def pour leen ko yàgg a waxee le premier ministre moom mën na def déclaration de projet général qui n'a rien à voir aujourd'hui avec la dissolution xam nga ñaari du benn mais dafa war a def bële balaa ñuy dissoudre li nga xam ne moom mooy pencum ndaw réew bu Sénégal bay waajaat une élection des élections législatives yoo xamante ne élections yi Fatima y a fonds qui se forment aujourd'hui mm-hmm. am na ci ñoo xam ne ci ku jëkk politique gi ñu ngi waajal seen bopp am na ci ñoo xamante ne ci société civile xëy na ci ay indépendant ñi ngi waajal seen bopp donc loo xamante ne la te mu euh, nekk ay élections yoo xamante ne day day wute ak élection présidentielle ngi door a toog euh, quatre mois après compte aujourd'hui ah, très bien am na solo Ibrahima ñu dellu si waat ci yow par rapport ak li nga xamante ne moom moo jëm ci dissolution euh, bu assemblée nationale mais également ak euh, li nga xamante ne moo ko wund ci biir. xam nga tey li may li ñu njëkk a posé man li may jàpp es ce que le président Bassirou Diomaye Faye et son gouvernement ils ont intérêt à ce qu'on dissout l'Assemblée nationale d'abord l'intérêt c'est quoi si c'est une politique politicienne ñoom dénoncé woon nañ ko étant dans l'opposition yàgg nañu wax ne dañu war a am assemblée boo xam ne du jot ak exécutif dara Ousmane Sonko wax na ko moo tax tout le temps je dis que les propos de Ousmane moom mooy kuwaat bi tilimal li mu bëgg a jëf parce que day am benn désaccord entre li mu doon promettre démb ak tey am benn désaccord d'engagement li nga ne wax nañ ko démb ak tey mais tey xam nañu sur le plan politique képp ku mës a jiite réew da ngay bëgg jël assemblée bi téye ko C'est pour cela qu'on dit une majorité mécanique. Mais eux, actuellement, ils veulent avoir une majorité mécanique. mais bu ñu ko bëggee def fu ñu desoon assemblée nationale polémique yi bari na. Mhm. soxna si gis na Sénégal gi gars yi yeewu nañ xam nañ fi ñu jëm ñu si bari. le 12 septembre yàggatul le 12 septembre bu ñu ko jàllee. Mhm. le 13 septembre le président de la république am na prérogative dissoudre l'assemblée nationale. Mhm. sans argument sans prétexte dissoudre ko. boobu gën a yomb jarul débat bu bari jarul bind conseil constitutionnel jaru ko na muñ fi ak deux mois ñu ngi ci juillet ñu ngi jëlal août ah août lañ nekk. août bi ah, mais <laughs> un mois moo ci des le treize bu jotee obligation may na ko droit may na ko constitution may na ko décret mu ne je dissous l'Assemblée nationale bu ko nekk ba ñu joxe benn argument mais après les conséquences. bu fekkente ne dafa ñu orientation budgétaire bi xamal askan bi fu ñu jëm buñ ko dissoudre na ko leer ne il va continuer la vision du président Macky Sall. Mm. moo tax ma ne y a un problème qui se pose jusqu'à présent c'est la continuité du PSE c'est la continuité de la vision du président Macky Sall moom la Bassirou Diomaye Faye di doxal tant que amaguñu déclaration politique